wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat mbokk yi Touba ca kanam Nourou Darayni ñu ngi leen di nuyoo fii ci sunu quartier général tey nag di suñu troisième journée ñu dalal fii waa diaspora bi kenn ci coordination bi di soxna Alimatou Doucouré ñuy nuyu bu baax si sëñ Abibou ak ñi mu àndal ci liggéey bi yëpp ñu bëggoon lay rek soxna Alimatou Doucouré ginnaaw bu ñu la ziyaare euh, ban gis-gis ak ban yëg-yëg la waa diaspora bi am ci Touba ca kanam rawatina ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom mooy soxna Alimatou. bismillaahi rahmaani rahiim. Eh, gannaaw bi ma santee yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant samay ñaari waajur maa ngi sant Cheikh Khadim bu baax waaye sëñ Baytan maa ngi lay ziyaara bu baax yow tamit di la jox sa wàccuwaay tey rafetlu sa taxawaay si màggal gi macha allah di la ñaanal bu baax feex ak taysiir waaye di ziyaara sama mbokk waa diaspora bi yépp nag. waaye sama ziyaara dama koy jaam tàmbalee si sëñ Abibu Mbàkke ñoo ngi koy ziyaara bu baax Mbàkke Balla di ko jox wàcc waayam waaye di ziyaara sëñ Tàkko Mbàkke waaye ñoo ngi ziyaara suñu jëwrin euh, sëñ Lat Abibu bi nga xam ne moom la ñu àndal si coordination diaspora bi di ko jox wàcc waayam bu baax Mbàkke Balla waaye damay jël sama ziyaara soxna yi di si tàmbalee sëñ euh, soxna Bintu Mbàkke ñoo ngi koy ziare bu baax Mbacke la di ko jox wàcc waayam waaye di ziare ñëpp rek waaye di wax ne sëñ Bay maa ngi rafet lu question bi nga posé macha allah am na solo lool sax waaw comme ni nga ko waxee rek diaspora bi moom euh, sëñ Bay danga may may tuuti sax ma nuyu sama mbokk waa coordination bi nga xam ne muy treize personnes yi nga xam ne ñoom laa àndal si biir coordination bi dama si coordination diaspora bi ma tàmbali si. sëñ Lamine Sarr ñoo ngi koy ziyaara bu baax di ko jox wàcc waayam waaye maa ngi ziyaara tamit sëñ Cheikh Ndiaye jëwriñ moom tamit mu màggal si tase nañu fii léegi di ko jox wàcc waayam waaye maa ngi ziyaara bu baax sëñ Baye Fall fay moom it Espagne di ko jox wàcc waayam bu baax di ziyaara sëñ Abdourahmane Diop di ko jox wàcc waaye ñoo ngi ziyaara bu baax sëñ Abdoulaat Amar Kaver di ko jox wàcc waayam bu baax a baax a baax waaye di ziyaara soñ bu sekk ñoo ngi koy siyaare di ziara Baye Serigne Gueye waaye di ziara bu baax sëñ Pape Ciss moom tamit di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax a baax ñoo ngi ziara sëñ Moustapha Mbacke itali di ko jox wàccuwaayam sëñ Modou Atta Seck tamit ñoo ngi koy siyaare bu baax a baax sànq rek gisee nañu fii ndeysaan di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax a baax di ziara ma Massay Ndiir ak sëñ Malick Dieng ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax a baax waa coordination bi di rafetlu seen liggéey tamit bi ñu ànd si biir coordination bi muy liggéey bu am solo lépp doon rek si luy jëmal luy jëmale Touba sa kanam ñu ma ànd ak ñoom bokk si treize personnes yi waaye sëñ Bay bu may tontu sa question euh, bu ma juumalee mooy danga ma laaj nu ñuy doxalee ñun soxna yi si Touba sa kanam waa di wax ne soxna yi tuubaa sa kanam moom wax dëgg yàlla ay soxna yu jàmbaar ñoo si ne ay soxna yu bëgg liggéey Cheikhul Khadim ay soxna yoo xam ne dañu xëyee liggéey bi di ko gontoo doon ay jàmbaar fàq te wax dëgg yàlla di wax ne Touba sa kanam daal xanaa dañuy sant yàlla sant Cheikhul xaddim bu baax a baax man loolu lu may faral di wax souvent la di wax ne bam ñu boolee si liggéey bi parce que gis nañ ne liggéey bi moom wax dëgg yàlla liggéey boo xam ne la liggéey gënu koo kawe ci kaw man de particulièrement man loolu laay wax te gis naa samay mboq soxna yoo xam ne si diaspora bi di leen nuyu de passage muy soxna di kel ba Thiaw Badiane ñoo ngi koy ziyaare bu baax jàmbaaru Cheikhul Khadim boobu waaye di ziyaare tamit soxna Maguette Ngiraan moom tamit di ko jox wàcc bu baax Baye Fallou maam jaara moom tamit di ziyaare mbokk soxna yëpp liñ naan sëñ bay boo buggee lim rek dangay ngay juum mais bu ma jëree sama ziyaare teg ko si ñaari soxna yooyu dañ may yóbbaale soxna yi diaspora bi yëpp di wax ne soxna yi daal macha allah ñu euh, sëñ Mbaye li may wax mooy Touba ca kanam dafa nekk loo xam ne dafa bokk suñu vie léegi man teg ni ma koy dundee la ko ñëpp di dundee parce que liggéey boo xam ne la macha allah macha allah dañuy sant yàlla daal da ngay man wax ji xaw ma fu ma koy tàmbaleeg fu may yem parce que bañ si duggee ba tey tawféex ak tey si rek ak yokkute rek lañ gis liggéey bi man de loolu laa si gis. moo tax euh, sama xëy sama gontu sama lépp dama siy boole si Touba sa kanam wax dëgg yàlla di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax bi mu ñu si boolee sëñ Bay di wax ne daal ñun daal dañuy ñaan yàlla dund fi yàgg fi lool te rek te yàgg ak Touba sa kanam ba 2 millions de mu yi nga xam ne bëgg nañ ko yàlla dimbali ñu ko ñun ñu nekk si diaspora bi rek comme question bi ma posé rek 2 millions de mu yi ñu motale ko rek bu mu génnee foofu si barke Cheikhouna Cheikhul Khadim ñun daal wax ji mu dul bari lool sëñ bay mais Touba kanam daal c'est notre vie suñu vie la bokk daal waaw wajalilaahi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat